sensibilisation ak enrôlement jëm ci li di couverture maladie universelle ci Diwanou Grand Yoff lu ëpp ñaari téeméer ci njaboot daal dinañu jot ci lu jëm ci carte CMU ci ndimbalu Mbaye Samb di membre ci conseil économique social et environnemental nekk conseil municipal don itam délégué de quartier ci commune bu Grand Yoff bi nga xamné ne responsable APR la fa. population dama xol programme Macky Sall ma gis ci ñett yo xamné ne na ma def lii. benn bi naa def lii pour population gis seen bopp maa ngi sensibiliser sénégalais yi pour ñu dem bindu ji jëli seen i carte pour ñu mën a wote ëllëg ñu mën a fal président de la soixante quinze pour cent mu di ab mbir moo xam ne askan wa yeewoo ca diwaanu Grand Yoff rafetlu nañu ko bu baax a baax ginnaaw bi ñu jàppee ne lii bokk na ci lii gën a dooleel PSE muy plan Sénégal émergent bi nga xam ne président Macky Sall moo ko taxawal ngir réew mi gën a mën a jëm kanam rawatina askan wi fi yeewoo mu dikkoon ngir teewe boobule liggéey mu ngi dellu siwaat ci solo bi Mbaye Samb def ci diwaanu Grand Yoff madame Mbaye Rokhaya Badiane mo njital service régional bu couverture maladie universelle. personne ñu dugal len ci mutuelle de santé yi lu tax mu am solo parce que au niveau de Dakar dañ né Dakar défi la défi boobu pour ñu relever kon nak à travers 1 million cinq cent personnes ñu wara a ci ci mutuelle de santé ci. 2018 bi comme ni ñu xamee ni 2018 bi année sociale la. bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom. bor bi nga xam ne CMU amaloon na ko yenn ci ay hôpital yu nekk fii jamono ji seenu kilifa muy seen directeur mu ngi nekk di def kéemtalaay kàttanam ngir mën a fexe ba ñu tàggook lu ñu mel. waaw dañ ne dañuy yoral xaalis waaye dañ ñi rek ñun retard de paiement li ndax sotti ci ak def ci la euh, euh, offre de soins ak demande de soins kenn mënul dem offre ak demande kenn mënul dem bàyyi moroom ba tax na suñu kilifa euh, directeur général agence de la couverture maladie universelle Bocar Mamadou Daaf mu ngi ci disposition yi pour vraiment honorer engagement yi mu jël mooy rembourser les eh, les les initiatives de gratuité ak les mutuelles pour liggéey bi gën a am solo. ginnaaw bëccëg bu am solo boobee mbay Samb doon def ca diwaanu Grand yoof ñu bëri ci responsable APR ya yeewoo ca gox woowule dikkuñu woon benn yoon ngir mën a fekkee bëccëg boobe muy lu mbay sàmb dellu di ñaawlu. wax dëgg yàlla dama xool ñi nga xam ne dañoo gëm Macky Sall ànd moom parce que ñi nga xam ne dañuy riir ngir bëgg luñ am wala bëgg ay ndombay tànk di tiitaroo APR amu ci kuñ joxut carte pour nga ñëw mais lii kenn amu ci initiative def ko si ñoom ñemewuñ ko. ñaari téeméeri njaboot mbay sàmb daal dina leen inscrire ci lii di couverture maladie universelle ci bërëbu fajukaay yi mu di loo xam ne moom mbay sàmb dellu na yëkkati ay kàddu ne fas yéene na di ko amal ñetti weer yu nekk. ñu des di gën a am yaakaar kon ci juróomi at yu bees yi ñu tabaat président Macky Sall ci boppal réew mi xëy na yeneen autorités yi ak responsable yi dinañu xool ni mbay Samb doxalee ba doxalee nu ni mel su ko defee rek ñu mën a fexe kon ba gën a assurer nekkinu askan wi te lépp nar a tënku ci lii di PSE muy plan Sénégal émergent bi président Macky Sall taxawal ngir réew mi gën a mën a jëm kanam rawatina askan wi fi yeewoo